É cultural! teg jeexal nag amul fii 那个人，跟跟跟。 là cái bài Thank you.

parce que ñun ñëpp a def erreur mais ñun dafa koy jégal may ko deuxième chance am quoi parce que bii gis nañ ñu cas bu ne ñu sëbi ko kon wax professeur yi ñu jàpp ñu sëbi ko gars yi tàmbali waat jàng comme ça kenn koy nekk ci leen quoi moo tax ñu sacrifier laaj laaj élève parce que élève yi moom suñu jàpp tamit duñ bàyyi professeur ñoo gën a mat xam nga ñoom nañ am même esprit de dépassement quoi bàyyi dool mu jàng comme ça élèves yi ñëpp leen reprendre seen i seen i études quoi mu jeex quoi loolu laa laaj. waaw élèves moom li ma leen conseillé mooy suñu jàpp ni buñ bàyyi quoi waaw parce que buñ bàyyi buñ jàpp rek instant bii de laaj élève élève bi élève bi jaay da da dañ koy daal buñ bàyyi daal waaw buñ bàyyi kon élève bi li ma koy conseillé maanaam mooy moom mu ànd ak gars yi ci xeex mi bu gars yi dem mu teg fa tànkam bañ a ragal dara. xam nga parce que lii ah professeur li ma la wax rek li ma leen di mooy man bàyyi xale bi mu jàng te bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi parce que ñooñu mën nañu ci nekk si ñoom quoi parce que gis nañ ñoo xam ne am nañ ay échange amul benn gaa boo xam ne ñu ngi leen di leen ba léegi ñu am benn leen xam nga ñu ne amul benn gaa boo xam ne ñu ngi leen di jàppale. kon ñu ngi ko dàq même professeur yi jàngale jàngalee booy élèves ñëw dem jàng dugg seen classe booy bi même comme may deuxième chance sax bu defee bac bu amul après def ko tamit mën na ko dàq ci affaire de moyen de conduite élève bi musul am moyen de conduite visuel élève bi mën jàng xëy na muy ceeb la rek waaw waaw mooy bu yar la mooy bu kuul la wax te xëy na mooy comprendre mu amoon nga problème. le conseil le professeur yi. ndax génn biñ génn yow xam nga lu ñu génn ndax ñun suñu moroom élève la ñuy kaasal est-ce que yaa la a jégal élève bi mu bàyyi ko mu jàng suñu borom sax soo ko tooñoo soo ko jégaloo mu jégal instant bi sonn nan élèves yi sonn nan pour jàng terus ko bàyyi mu jàng parce que un mois moo des école tëj mën ko bàyyi mu jàng élèves yi li ma wax mooy lan mu toog heure bu waree jàng mu dem jàng su professeurs yi génnee ñu ñu génn ko ndax ñu ko way way way liggéey ah, bon di di ñaawlu li xew rek ci Kébémer nga xam ne Kébémer euh, mérite wul lii quoi Kébémer ci jàmm lañ ko xamoon ak ak ak dal ak résultat yu baax résultat yu baax boo demee xale bi boo boo boo di bu ndee ba gën a jëf loo xam ne ah, dara lu leen métti quoi sept euh, élèves yi ñoo sax élèves ñoo am problème ak profil ñun ñooñu leen di également mais ñu ngi xelal encore une fois ci professeur yi di leen di leen jégal également pour ñu mën a bàyyi booy bi tamit ndaxte bu booy bi demee wax na janis bi day suicide donc dañoo mën a def rek mu di tenir booy bi quoi ndaxte nekk na yow waaye sax yi maa ngi leen di woo ñoom ñëpp ci ci maa ngi leen di woo ci dal ci yar ak teggin fépp fu ñu yaakaar rek bu ñu fa demee ñu am ñu am succès ko dem fa également comme ñu moom également pour ñu moom trouver consensus ñu déglu seen mag yi comme ça a def ñu bañ a def violence après ba mu doon ñu jàng seen seen bon prof yi maa ngi leen di ñaan ci jëmmi seen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu baal booy bi booy bi ñëw rek looloo problème taxi yi ñoo ni ko élève bi mooy sanction yi sanction yi ba mu mag kon leneen des si loolu. loolu ñu ko waroon changé changé ñu ko tool. oui changé nañ ko mooy sept jours. léegi ñu bëgg a am ñoom. sept jours kese lañ ko doon changé. loolu war nañ ko changé mais mënuñu fekk ñaari changé ci tool. mooy la élève bi day jàng si mbaa jàng du am kër mère. waaw jàng du am kër mère. Adresini kurdu.